salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu waa wér-gu-yaram ñu ngi nuyu ñëpp mbokk doon laaj ci wàllu soble soble nag lu bari xeet la lu bari njëriñ la lu ñuy jëfandikoo it lu bari loo xam ne fekk nañ lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci borom xam-xam yi di ko fajoo di ko jëriñoo di ko dundee moom it bokk na ci yi nga xam te di ko mu bari njëriñ trop ci xeeti fajin wu ne daanaka lu ko ëpp nuñ koy fajoo moom bariwul. lu ko gën a bëri ci liñ koy jëfandikoo bariwul ndax togg yu bare bare bare nga gis ni koy togg dañ ko ci def xëy na day safal am melokaan bu cafka wala xeeñ ko ci nekk waaye du rek lañ ciy jële ay njëriñ yu bare bare bari moo ci am yoo xam ne ñu koy jëfandikoo am na waxuma njëriñ yooyu faj dañ ci daan faj mag ñi dañ ci daan faj yu bare bari ak xeeti fajun yu bari di ko boole yeneen di ko jëfandikoo. ay xeet la it nag gis nga yu xonq comme bii am na yu weex am na yu nekk ci digg bi am na yeneen xeet lu bare bari ay xeet la te loolu ñu bokk njëriñ yu bare bare bari waaye li leen di wutale couleur yooyu it couleur yu wute yooyu it léeg ma def ci dara su ko lu bari ay ferñeent la yu bari te ferñeent yooyu ñuy wax mooy tax léegi njëriñam ñu xam fi mu dayoo. amna na quercétine quercétine boobu tax ñi wax antioxidant boobu lolu bay tax day ar lolu na tax na su ko nit ki bolé ci limay jëfëndiko yalla ya, mën na koy yu bari mën na koy bañ dal xéti vitamine yi bari na ko lolu vitamine C amna ko vitamine A vitamine B amna ay minéraux lu melni ki magnésium amna sodium phosphore amna chrome yu bari bari yo xam yanen yu dul loolu rek ci na natt da ngay xam ne kon lu bari njëriñ la ba tey lu bari e, ci borom xam-xam yi wax nañ ci surtout nag soble bu xonq bi am fajkat yu bëree bari bëri wax nañ di ko jëfandikoo ci même di ko lekk ci ñorul nga xam ne kenn du ko togg yu bëree bëri yoo xam ne tey dañ ko ci daan faj lu bëri lu dalaa nit soble boobu lañ koy faje su ko defee nag moog yeneen yëpp ñu daanaka li ci gën a bëri ñooy yem. waaye boo gisee bu xonq bi toujours moo moo gën a ëpp chafka moo dàq it ci wàllu ñam ñu ci gën a bari daanaka bu ñuy togg moom la ñuy wër boobu ci bëree bari am na ñoo xam ne moo dañ koy gën a taamu da ko jëfandikoo ndax melokaana woowu ndax melokaan yi li wax toujours day gën a attiré ni mu koy fonke ak ni mu koy jàppee du bokk beneen ba loolu it am na ci loolu su ko dee bokk na ci njëriñam mooy setal yaram bu ko nit ki lekk wala ko ci li lekk wala sax mu tëj tëjal ko def ko ba am ci ji def ko ci kaasu ndox di ko naan ko lu ko gën amul day setal wàllu yaram yëpp gis nga bu jamonoy tawat jotoon sax yenn xeeti tawat yi di wàlle ni nit ki di ko boole ci li lek lekk loolu mën na koy sàmm ba yenn xeeti tawat surtout yi wàlle ni mën na cee mucc baax na loolu ci wàllu biir wàllu biir ndax dina tax léegi butit yi di mën a def lañu ñu war a def ba te lool su amee borom mën na koy defal tox ba jafe-jafe lekk mu rees yooyu dana ci mucc ndax ndox mu baree bari it moom nga xam ne léegi ko am dina tax nit ki di am appétit ci mën a lekk moo tax su fekkee nit ki ñàkk appétit toujours dañ koy digal li muy lekk lu mu néew néew as palaas yi may def mu di ci boole soble dina ko dimbale noonu dina ko dimbale it muy tuur ndox bu baax. ndax setal googu muy setal yaramam ak yenn xeeti tooke yi nga xam ne dafa nekk yaram yooyu yëpp da koy gën ci wàllu sax faj yenn xeeti jàngoro yi surtout lu mel ne heure yeeg lu mel ne yu mel ne taas yeeg yu mel noonu su ko tëjee tëjalee di ko jëndi bomb ko ci noonu baax na ci trop da koy dindi soj nag sëqët loolu moom ci la fekk baax sëqët surtout nag sëqët ba ci asma bi ngay gis nga même nit bu yoree asma fu mu boo ko daggee nii teg ko ci wetam rek mag ñi daa nañ ko def sa saqat wala asma jafe-jafe nooy nga dagg benn soble teg ci côté bi dagg ñaar xar soble rek jël benn xare bi teg ko ci wet gi jël xare bi teg ko ci mu tëdd ci digg incha allah guddi googu bu doon saqat guddi googu dana ko defal tawfiq ba même bu ko boolee ci li mooy lekkit noonu baax na trop ci jafe-jafe saqat yi ba ci ñi nga xam ne tey même bu ñuy gis baax xëy na duñ ko gis tuuti tuuti lañ koy jël duñ ko gis bu baax buñ ko boole ci lañ lekk mën a leen dimbale ba day am ba ci ñi nga xam ne sax seen nopp yi day xelli ñooñu nga xam ne dañu am nopp yi xelli buñ ko tukki tukkilee ba am ci tuuti toqal ko bi ci biir nopp baax nañu trop ba ci jafe-jafe yooyu de laal wàlluf eh, yaram lu mel ne xeeti eh, xiis ak yi laal foofu yëpp foie bi yëpp bu koy jëfandikoo moom itam baax na ci trop ba ci wàllu joxe kàttan na tax am kàttanam yaram bu koy lekk dëgër bay xeex wàllu grippe yeeg soj yeeg yooyu nga xam ne te yu baax la ci lu koy so surtout bu dee soj ak sëqat yooyu nga tucc tuccal ko léegi def segg ko ba am ci ndox wala nga def ko ci ndox baxal ko ba mbax frej ko def ko ci ndox lu yem boo ko kii rek day seey nga segg ko léegi boole ko lem di ko jël par kuddu baax na trop ci xeet yi day aar nit ki ci wàllu surtation boobu nga xam ne léegi day yéeg ndax farñeent surtout vitamine B boobu mu am tax na bu ko nit ki jëfandikoo day tax e, deretam di daw ni mu war a dawee te loolu dina ko aar ci wàllu tension boobu dina ko aar ci wàllu tawati xol yi dina ko aar ci wàllu yoonu deret jooju di fat loolu yëpp mën na koy dimbale ba xeeti crise yooyu di ko dal tey muy juddoo ci yooyu yëpp loolu ndax day wàññi cholestérol day lakk cholestérol boobu ba nga xam ne tey bu ko nekkee jëfandikoo cholestérol bu jéggi day boobu mu yéeg te loolu bu amee rek day am jafe-jafe ci wàllu xolam kon loolu bokk na ci li nga xam ne baax na ci loolu ba ci ñi nga xam ne dañoo am suukar sax ndax nee na baax na ci yi nga xam ne tey day wàññi wàcc suukar da koy jëfandikoo moom soble boobu da ko lekk sa suukar du yéeg ndax da koy wàcceel dafa baax trop trop trop ci wàllu insuline boobu nga xam ne tey moom mooy produire muy yemale suukar boobu da koy dimbale li tax moo mën a am day eh, sawarloo it eh, wàllu yaram ba tax même bu nit ki jëfandikoo sax dara loolu fi mu war a yegg ci moom dina tax moom moom yegg ci moom kon gis nga ko loolu itam baax na ci trop baax na lool ba tey ci wàllu yax nit ki bu koy jëfandikoo xeeti tawat yu arthrose yooyu yëg yooyu di def yanax yax yi fanax noonu wala rhumatisme ak yooyu yëpp da koy aar ba suñu borom mën na ko ci defal tawféex ba lool de ba ci ruux ruux yooy rawane yaram yi ruuxit yi lakk moo xam sofe-sofe yi la wala yu mel noonu kon gis nga ko yooyu yëpp ci tënk xëy na dañ ko tënk rek wax waxoon nañ ci lu gën a bari loolu foofu waaye euh, bari nañ njëriñ yoo xam ne tey ñu ngi ko ci jëfandikoo mu nekk ci ak xeet wuñ koy jëfandikoo yu bare bare bare yoo xam ne euh, borom xam yi wax nañ ci yu bari yoo xam ne ba ci ñun mag ñi mag ñi suñu réew mi daan nañ ci fajee lu bare bare bare ba ci gis nga même sax am na tawat yu sonaloon nit ñi lu bare bare bare ci jën jamono ba loolu lañ ciy jëfandikoo ba wàññeeku gis nga sax ba ci wàllu tàngoor yaram wuy tàng lool surtout xale yi nga xam ne day dal léeg-léeg da nga koy gis tu tànk yii bébé boo xam ne yaram bi di tàng jër loolu loolu nawut gis nga xar soble rek léegi taf ko ci tànk bi solal ko ay soset loolu déggaloon nañ ko fii am ko ko def te loolu caaxaloon ko trop trop trop sonal ko trop waxtu bu loolu di sonal tu tànk boobu waaye bi mu ko defee léegi la tàggoog moom kon gis nga ko lool itam bokk na ci yi nga xam ne tey da koy dimbale nit ki te mooy wàcce tàngoor ko nit jëfandikoo moom suñu borom mën na koy defal toox yi ba tàngoor boobu nga xam ne du ko sonal surtout tu tànk yooyu bax na ci trop ba ci jafe-jafe sax wàllu nelaw ñi nga xam ne seen nelaw yombul waaw suñ ko jëlee moom itam di ko jëfandikoo boole ko ci li ñuy dunde su dee ko lekk. surtout nag lu ma reere mu boole ko moom mën na koy defal tawfiix ba loolu yëpp tey saafara ak yeneen yu bëree bëri yu dul yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullah